merci beaucoup comme ni nga ko xamee ne ñu ngi fii euh, au niveau de la mairie de la commune d'arrondissement de Wakhinane ci li nga xam ne mooy l'intercommunalité le maire de la ville de Guédiawaye l'honorable député El Hadj Ahmed Aïdara waxtaan ak commune d'arrondissement yëpp liggéey bi mairie commencé nekk di liggéey waaye aussi tamit ki nga xam ne mooy nekk à la tête de la ville l'honorable député ñëw nag tey nag jàkkaarloo macha le maire bi nga xam ne mooy le maire de la commune d'arrondissement monsieur Racine Talla mu war koo dalal ginnaaw bu ñu waxtaanee ba pare nag beneen tournée boo xam ne ñu ngi ko tuddee l'intercommunalité mais aussi tamit visite de courtoisie entre le maire de la ville de Guédiawaye et le maire des communes d'arrondissement vous souhaite euh, la bienvenue ici à Wakiman Lizac. Je salue très chaleureusement les conseillers qui vous accompagnent, également. Guédoué, c'est une ville, Wakiman, Ce genre d'initiative euh, renforce la nécessaire coopération qu'il doit y avoir entre les différentes institutions. Euh, parce que géographiquement, nous n'avons pas choisi de frontières. On est dans la même ville et il se trouve que vous êtes le maire de ville qui, en vérité, euh, <clears throat> coiffe le département qui est composé de cinq communes Sa commune aussi a le statut de collectivité territoriale, donc de mairie. Donc en plus de la mairie de ville, qui dans l'ordre des collectivités locales vient avant les mairies de communes, donc il y a cinq euh, mairies de communes. Donc euh, ma lay dalal fii ak plaisir ji nag euh, mooy géejawaay euh, romb nga fi di sànni xeer rombaat romb nga fi dugg di nuyu loolu mooy géejawaay mais ci lépp nag ci noonu la rek comme ma ne ñëw naa mairie de ville waaw yëngal et cetera comme ça mais on reste leen duma ko waaw. non def naa non non non plaire su ma leen keneen ki fi nekkoon kooku du ma sax tudd turam donc euh, vraiment bon ñoo bokk géejawaay yàlla moo la jiital nga liggéey ko ñefe ko aussi yal na la ci yàlla jàppale parce que le Sénégal c'est un pays d'harmonie c'est un pays où chacun lutte pour prendre ce qu'il doit prendre mais après, on est tous ensemble. Et surtout, on ne peut pas ne pas être ensemble. État bi ñoo ko bokk état bi amul couleur politique maire de ville bu bokk euh, opposition bu bokk beneen coalition ak maire bu bokk beneen kii bi am ñoom ci yépp l'accès aux ressources c'est des ressources publiques yépp c'est bien défini mais dafa am yoo xam ne dañ ko seet suñ Euh, du la jëriñ du jëriñ te pertement population bi la fekk ressource yaa ngi donc ñu bañ a déggoo ci ay gis-gis euh, dina wàññil population bi dara mais du ñun lay wàññil en donc loolu suñ ko jiitalee rek dinañu mën a liggéey te aussi euh, dina mën a yombal autorités yi aussi jàppale parce que dafa am yoo xam ne mënoo ko dagg sol commune loo xam ni aussi munoo ko sédd ville comme ni ñuy waxee rek ville amul territoire mais euh, ville euh, ordre de collectivité locale la boo xam ni dafa am solo ci yoo xam ni moom moo ko war a nànk muy ci hôpitaux yi muy ci centre de santé yi muy district sanitaire yi muy ci enseignement secondaire bi muy ci les routes principales et à l'époque même l'électrification etc cetera et fii dafa nekk am vraiment des perspectives de développement telles que il nous faut une ville forte très très forte et pour ça il faut que on puisse travailler ensemble en tout cas c'est beaucoup de plaisir que je vous reçois gis nga nag ni mairie léegi amoo jot amoo jot jotu sax sànni xeer yàlla yàgg sant yàlla boobu laay doore sant tamit le bureau municipal ak euh, conseil municipal bi nga xam ni xalaat bu rafet bi ñoom ñoo ko jëlandoo ñun ñëpp ci benn séminaire bu ñu def pour joxante loxo géej waaye benn bopp la kenn mënu koo xar comme vous l'avez dit rek sànq mooy su wàllum politique jotee ñu politique vous êtes du pouvoir nous sommes l'opposition heure politique bu jotee rek ñu politique waaye heure liggéey nag li ñuy wax le temps de l'action buñ ci tollee rek ñu jéem a yëngu daal di liggéey on dit parfois que la ville n'a pas de terroir ou bien n'a pas de territoire elle est composée de cinq communes donc ville bi moom lépp lu muy def rek def na ko ci benn commune donc kon maire commune yooyu yëpp dañu war a euh, jàppale la ville ba fu mu dem rek affaire yëpp daal di yomb ñu sant nag mii di jàllo ñi nga xam ni il fait partie de vos bras droit ñu ne gën a wër nag mu bokk ci ak Saga Sall mi ak Racine Ba ñun ñett ñoo toogoon di waxtaanee lii après génnee ko si biti sant tamit ñëpp suñu jàmm yaakaar naa xam nga ko comme ni nga ko waxee rek ñoom tey na ba Jam, c'est le trésor de roi. ak xam nga ko ak les adjoints au maire Amina Souare Awa Diaw les Dawakinan et de Adja Nena Mbaye et les directions techniques aussi sont là en tout cas daal kontaan nañu ci ñëw bi nga xam ni ñëw Merci. <coughs> Merci beaucoup à Maître. C'est la star de Guédiawaye. Naka def. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien.